et ils se disent des grands journalistes ils se disent des journalistes d'investigation Quand on dit que live vie, Pape Alé qui est Pape Alenia C'est un journaliste. Pape Alenia a une formation de journaliste, mais depuis que Ousmane Sonko est venu dans le landerneau politique, Pape Alenia n'est plus journaliste. waxtaan nañ ko wax te êtes papa Pape est du journaliste Pape Ale mënut a chaîne YouTube bi muy communiquer Ousmane Sonko créé il ko may coco, ko teg ko ci loxoom muy bëtam di tànkam di l'homme. Kula ce abal bët veux lay wax fi ngay xol Pape Alé exercé wul métier journaliste depuis que Ousmane Sonko ñew Pape Alé métier partisan lay euh, lay métier sympathisant de Ousmane Sonko lay woné di détruire l'État faté peuple bi tax mu don Pape Alé ci revue de presse yi ko don tàccoo ci chronique yi ko ci samedi mag ya mu doon def 2 tv mu faté askan biko ko mu jël leppam jox ko Ousmane Sonko motax liko ci fekk tay dal ko ci yéenewuñu ko ko mais sa place c'est en prison pap Alé Niang li mu njëkk def manam diffusion de nouvelles bo xamanteni c'est non rendu public un document qui n'a qui n'était qui pas rendu public mom la ñëk diffuser ñu war ko tek loxo muy indi ay grève de la faim ak ay fièvre yu dul jeex. Pape Alé Niang su nekkee ci biti pendant des années yor caméra am di wax Pape Alé Niang feebarul Pape Alé Niang suñ ko caabi féetee ginnaaw ñu ne Pape Alé Niang dafa feebar Pape Alé Niang dafa gën ndey ñi tëdd rëbës Pape Alé Niang dafa gën ndey ñi tëdd Camp Pénal Pape Alé Niang dafa gën ndey ñi tëdd Cap Manuel Pape Alé Niang su teg woon ci yoon ni ay moromam journaliste ñoom Birahim Touré ñi ngi fii ñoom Mansour Diop ñi ngi fii ñoom Mamadou Ibra Kane ñi ngi fii Alassane Samba Diop mi ngi fii Ndeye Fatou Ndiaye mi ngi fii Fatou Abdou Ndiaye mi ngi fii Mame Mbaye mi ngi fii kenn musulman leen toog loxo parce que dañu tegu ci charte même parfois suñu djengé xamna nañ nuñ jéngee mais Pape Alé dafa dem ba faté métier journaliste bu ko falon top ci ginnaaw Ousmane Sonko liñu ñu Ousmane Sonko moy doon président pour ñu doon ay ministre de la communication wala des trucs comme ça loolu yàlla moo koy defal doomu adam kon yaakaar naa ni association presse bu fi jokati. di xéxal Pape Alé je te dis que xéxalo Pape Alé Niang au nom de la presse ndaxte Pape Alé Niang ba muy def dérive amul correct bu jog taxaw wax ci amul SYNPICS bu jog wax ci Pape Alé Niang dafa violer les lois un journaliste gis len ben journaliste Sénégal bu def live Ousmane Sonko ñi ngi koy jëleeg nangam sangam ak li la wax ak nañu génn nag dañ koy def nangam sangam C'est ça le rôle d'un journaliste su dee loolu mooy rôle journaliste nañ tax journaliste way kon doon journaliste gatché la ci réew mi je crois que nañu am raison garder sur ce qui se passe au Sénégal té dañ koy waxtané Pape Alé n'est que là pour violer la loi Pape Alé pour pour charte wala éthique na dem jënd carte passé. vous vous comme un politicien on sait que c'est un politicien au nom de la politique et il arrête de parler au nom de la presse Pape je vous avez fi une révélation ba vous commencez à une une révélation of ne ki pas. ci à xam nañ 2017 la xam ku nekkoon ci pap, ginnaaw pap Alé di yëkëti ay message di yëkëti ay billets di ko jox di ko jox ay information ñuy wax pap Alé est ressourcé il n'est pas ressourcé il n'est pas rejeté dafay toog place am nit ñëw di ko jox muy netali donc dañuy waxtaan wax deug pap Alé sa placé en prison bërki démb lañ ko yobu garde à vue ñu naan ay pavillon spécial lan lay feebar bu mu nekké ci biti da feebar yow nga xamanteni ne ngi sous contrôle judiciaire

Les célébrités, célébrité yi gënuñu fi nous kenn gënuñu fi kenn ñun ñep ñoo ci on est tous libres et égaux devant tout le monde on doit être égaux devant les lois et les juridictions muy muy muy Massamba ku ci def yoon lay loxo ay dañ ko war defal privilège parce que dafa siw ak nañ ko spécial ak imaginaire yow barki démb lañ la génnee nga wér ci saa si taal say caméra ñu dugal la garde à nga bëgg feebar yenn yi yëpp sa askan la waay may wax son petit frère Thierno Niang nekk ci Facebook bi di attaquer les journalistes Thierno Niang man Tange Tandian maay wax ak yow arrête d'attaquer les journalistes on se connaît très bien xam naa la bu baax 2012 bi may fekk Bruxelles otel Midi di topp sama ginnaaw di raam pour am notoriété pour gisanteeg ay Youssou Ndour maa la ubbil yoon Thierno Niang journaliste yi ngay saaga ñoom ñoo tax tey ñu xam la créé woo sa tour parce que lii nga wala lii la nangam sangam soo bëggee xeex du sa page Facebook ngay toogee di xeex di xas Sénégal di wax chaque jour Thierno Niang da ngay dagg sa billet jógee Belgique ñëw Sénégal nationalité bi nga am Belgique moom laa am nationalité bi nga am Belgique moom laa am dama ko fa ne ñukk ñëw xeexal sama Sénégal toog sama Sénégal di xeexal sama Sénégal pour dëgg pour Sénégal régner ci paix ak stabilité

def nga fi trafic d'influence usurpation de fonction gàddu say caméra fu ñu am événement ñun dañuy jël en tant que des journalistes nga botu suñu ginnaw pour taal say caméra di jema a jaay journaliste Thierno Niang si sama ginnaw nga top pour xam kan moy yusu Ndour pour am benn photo ak yusu Ndour man ma la ko defal ci kanamu Mati Trois Pommes hôtel Bruxelles Midi en 2012 Thierno Niang Thierno Niang si sama ginnaw nga top pour ak Momar jeng Diallo Thierno Niang si sama ginnaw nga top pour ak staff yusu Ndour pour bëgg notoriété Thierno Niang noonu nga naxee ba dugg ci ay staffu Carlou D fu ñu organiser nga ñëw taxaw di jéem a jaay la un grand monsieur tu n'es pas un grand monsieur crée-toi un nom et arrête d'insulter les journalistes ba ko dalee def nag yàgg na soo gisee ma tontu la tey tu as les journalistes sur ta page Facebook et j'ai fait partie de sa corps de métier Thierno Niang da ngay créer sa tour bi ngay takk jabar fii man Tange Tandian nga woo man maa la takk li jabar jumaa Sicap Karak Thierno Niang man maa la publier say image pour nga am benn notoriété soo bëggee xeex da ngay jógee Belgique ñëw Sénégal xeexal Sénégal mais doo toog Belgique di bind sa page Facebook ba pare di reylu ay doomu sénégalais yooyu Thierno Niang Sénégal dafa tuuti xamante nañu looy waxati na la leer wala nga xam ni que am na ñoo xamante ne xam nañu lu bëri toog ci ba nga dalee nekk ci page Facebook nag dox yàgg na j'ai averti Ousmane Jordan Fall ma ne ko Thierno Niang na xoolaat li muy wax sa grand frère su nekkul ci dëgg soutenir ko yéen a bokk ndey baay mais woo ko ci ruq ko n'accuse pas les Papa Alénia a fait nous dem place journaliste du ko parce que le métier journaliste war nga am yow di saga journaliste page Facebook nga un journaliste pour ñu lay bindal dina la article pour que nga siw def Sénégal qu'est-ce que tu as représenté au Sénégal wax ma lan nga def ci Sénégal nek Belgique def ay d'influence ay sol ay costume ay veste di un grand diplomate Thierno Niang arrête man Tange Tandian maay wax ak yow Thierno Niang on se connaît très bien de Bruxelles à Dakar da ngay dagg billet ñëw Sénégal taxaw xeex dañuy jàpp Pape Alé Niang daggal billet nga ñëw taxaw dem marchal ko wala wutal ko leneen mais du ci page Facebook ngay taxaw di saaga Sénégal di naan fumiste fumiste xam nga fu mu nekkee mooy kuy défendre ki wàcc corps de métier dem di défendre benn doomu aadama Ousmane Sonko du yàlla du yàlla du xutbu zaman il n'a que ce qu'il mérite. yéenewuñu ko ko mais il n'a que ce qu'il mérite lu way rendi ci loxom lay nàcc lu mu rendi mo nàcc ci loxom deret bi tiis ci kaw loxom limu jiw mom la seme tey yéenewuñu ko kenn man mi suma ma la même chose sama place moy prison suma ma li pap Alé Niang def sama place moy prison donc am leen raison garder ngeen wax nit ñi deug te ngeen arrêté di fen nit ñi nek ci sen Facebook di wax ñu juddu barki démbu 2000 ñom ñoo xamul mais ñun on se connaît très bien tour ngay wut ak personnage yàgg nga ko wut 2012 ba tey topp nga sama ginnaaw Tange dama bëgg a photo ak Youssou Ndour Maty Trois Pommes mi ngi taxaw parce que Youssou nduur man kese la jëloon yóbbu ma Belgique euh, Charles Faye mën na ko témoigner saint ma Mané mën na ko témoigner Birane Ndour mën na ko témoigner ma lay xëcc di la yóbbu ci Youssou Ndour dugal la ci Momar Dieng Diallo ba lu xew Belgique ñu dugal la ci topp Carlou di ba su ñëwee ay euh, African leadership nga ñëw di jaay trafiquant d'influence yor sa caméra bu ndaw yor sa benn affaire di jaay journalisme foo ko jàngee fan nga ko jàngee waa Belgique ñoo la xamul mais man je te connais très bien.